di ko ñaan mu sax di julli ca yonentam ba ak i sahaabaam ak ña koy topp ba ilaa yawmi diin boobu moo ñu wax ey yéen jullit ñi jëkkante leen jëkkante leen ci lan ci alal yi ci immeuble yi ci tool yi laa wallahi jëkkante leen jëm ci ajjana joo xam ne yaatuwaayam baa gën a yaatu asamaan yi ak suuf suñu borom mu ne maa ngi ko jagleel ñi gëm yàlla ca gëm àllaaxira gëm yàlla gëm yonentam borom boobu nee na mooy borom ngëneel yu mag yi bokk na ci ngëneelu yàlla mu daal di ubbil ay jaam ubbil jaamam yi ay lenn ci ay occasion yoo xam ne daan ca mën a dabe ña leen rawoon daan ca mën a rawi ñu topp seen gannaaw loolee ñu mën caa yokkoo la nga xam ne mooy ay tuyaaba ak doomu aadama ni dundam ngi gàtte ak it dee xamoo kañ la lay dab xamoo ñaata fan nga dese looloo tax ba nga la waay bunt yooyu heure boo ca yegsee loo mën a profitoo profitoo ci niñ kay joxe misaal ci lu bari tey jii li nga xam ne nii mooy central téléphonique yi jàngal nañ ñu lan muy bonus te mooy ñu bari seen crédit day jeex sax ñu xaar ba bonus am ba nga xamee ne nii loo doon jënd ñu ne la tey boo ko defee ñu ful ko mille fois mbokk naka noonu suñu boroom noonu la amee ay jours yu yoo xam ne nii dafay woo jaam yi ngir ñu profito gën koo jege mu bokk ci loolu fan yi nga xam ne nii tabbi na depuis démb muy fukki fan yi nga xam ne moo ubbi tabas gi suñu yenent salallahu alayhi wa sallam nee na amul yeneen fan ci yeneen bis ci at bi yépp doomu aadama man caa defal yàlla jëf bu yàlla gën a bëgg lim ko defal ci fukki fan yi ay jëf bu yàlla gën a bëgg man ngaa def jëf yu ko gën a màgg waaye lu yàlla gën a bëgg moom mooy lañ ko defal ci fukki fan yi sahaaba yi na ko waaw ki doon def benn jëf na doon ak lu mu ndaw ndaw ci fukki fan yi ndax yàlla dana ko gën a bëgg ki nga xam ne ci yeneen fan dem na jihaad fi sabilillah yonent bi alayhi salaam ne jihaad fi sabilillah li muy màgg-màgg benn xasanaat ba gën a néew benn subhaanallah boo wax wala ñaari dërëm yoo sarxe moom la yàlla gën a màggal xanaa lu dul koo xam ne bam demee jihaad dafa dem ba alalam jeex fa bakkanam wadd fa kii daal la kenn mun dab mbokk nañu gis ñi ngi dund bis yu mag yoo xam ne nii day suñu borom yàlla waat na ca suñu borom mu ne wal fajri wa layalin ashr mi ngi waat ci fajar mi ngi waat ci fukki guddi ya ca loolu mooy fukki guddi ya nga xam ne moo ubbi tabaski suñu boroom tudd ko ci beneen aaya ne mooy ayyaaman maalumaat bi nga xam ne nee nit ñi nañ daje ca makka ngir tudd fa yàlla ca at ga ña nekkul makka di ko tudd yàlla ca yeneen gox ya la gën a màgg ci jëfi aj di am ca la nga xam ne mooy fukki fan yooyee mbokk gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy fukki fan yi gën a màgg ci at bi yépp looloo tax ba da ngay gis ne bu dee wàllu guddi yi fukki guddi yi gën a màgg mooy fukki guddi yi mujj ci weeru koor waaye bu dee bëccëg yi fukki bëccëg yi gën a màgg mooy fukki bëccëg yi bi tabaski loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee fukki fan yoo yooyee yow mi nga xam ne nekkoo Makka xamal ne bokk na yaakaar yu gën a màgg yuñ cay am mooy li am ci ñaari bis yi benn bi mooy yow mu arafa beneen bi mooy bisu fukkeel ba di tabaski yow mu arafa ren mi ngi am ci bisu ajjuma di ngëneel boo xam ne daa dugg ci biir ngëneel bisu ajjuma di it bu mag ñeel jurit ni dëppoog arafa di it bu mag ñeel jurit ni loolu di ngëneel ci kaw ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne koo xam ne danga woor bi bisu arafa yàlla dana la baal bakkaar yi at mi nga xam ne mi nga génn ak at mi nga xam ne mi nga mi nga dëkkmal ñaari at yàlla dana la baal bakkaar yi nga ci defoon loolu mbokk mi ngi am la nga xamee ne nii moom mooy ajjuma ji di ñëw bokk na li gën yow mi nga xam ne danga am bori koor ca mooy nga jagleel bisu arafa yéene boo xam ne moom rekk nga yéene gannaaw ba nga fay say baru koor waaye même loolu boo jàppee day diis ci yow tànnal benn bis te bis yi ngay fay nga dëppale ko ak wooru yowmu arafa da am la nga xam ne tamit mooy gëneel loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax fukki fan yi gannaaw loolu nañu xam ne gannaaw bisu arafat bi loo man ca woor ca yit nga la way def ko donte ne nii suñu yaay Xafsa nee na yonent bi alayhi salaam daana ko woor suñu ay Aysa mu ne man daaw ma gis yonent bi di ko woor lañ cay wax rek mooy du ne yonent bi nee na woor leen fukki fan yi waaye bisu ngëneel la ka ca mën a woor loo ca mën a woor même bu doon arafaat ba ca nga yem bu doon ñetti fan juróomi fan loo mën nga def ko ca sarax yi nga cay génne ak yeneen ak yeneen nit noonu la mel mooy nekkul loo xam ne lu ñuy tënk la waaye lu mu gën a bari gën a nekk loo xam ne lu baax la ci yow ay yéen bokk julit xam leen ne bokk na lu gën a màgg ci loolu la nga xamee ni nii suñu yonent alayhi salaatu wasalaam moo ko ci digle mu ne fukki fan yi nga xam ne ñu ubbi tabaski moo gën a màgg ci mboolem at mi yépp la nga xamee ni dangeen ko cee def kon bari leen ca la nga xamee ni nii mooy ay takbir ak tahlil ca kii nga xamee ni nii mooy abi hurayra ak abdullah ibnu omar ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon ci keppaaru yonent bi salallahu alayhi wa sallam te yonent bi faatu bàyyi leen fi fukki fan yi bu ma san jot dañ daan doxantu di dem ci marché yi di yëkk ci seen kaddu ci takbir ngiré di ko fàttali doomu aadama yi nit ñi ànd ak ñom di takbir yoyé lolé mbokk donte ne sunna la bo xamné do bari ci nit ñi dañ koy faté waye ngal la way fo mën a toll foo mën toll bari la lolé nga xamné ni moy allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mooy góorgóorul di baril te zikr yooyu suñu borom subhanahu wa taala wax naa la sànq ne jëf bu baax boo mën a def mink ngi gën a bëgg nga def ko ci fukki fan yi e waay xamal ne jëf bi gën a baax ci baax yi bokk na ci la nga xamee ne nii moom mooy lañ ko jagleel te mooy aj ak umra donte ne aj ak umra googe lu néew la yàlla tànn jagleel leen ko yal na yàlla yombal ko ci ñoom ca nangul leen ko te nu xutba bi passé ñi nga fekke xam nañ ne bokk na ay ngëneel yu yàlla ubbil ña yeggul makka loo xamee ni nii mën na leen a may yoolu makka bokk na ci loolu mbokk jullit lii nga xam ne mooy suñu waxtu julli juróom ñu gën koo fonkaat ay e yow mi nga xam ne dem jàkka woon lu bari ci yow fexeel ba fukki fan yii lii di julli mbooloo bañ laa raw ca jàkka ja ngal la way góor góorlu leen ci jaamu yàlla gu mag guñ leen waxoon àjjuma paase ca mooy dem julli ji fajar ca mbooloo ma toog fa di tudd yàlla di tudd yàlla ba setter jot nga jóg julli ñaari rakka rasul salallahu alei wa sallam mu ni da nga am la nga xam ni moom mooy lii di yoolu acc da nga am li nga xam ni moom mooy yoonu umra bokk na it lañ leen ca waxoon moo di na boroom xam-xam yi dañuy wax ni bépp jigéen boo xam ne nii julli na fajar ca këram toog fa mu doon jullee di tudd yàlla di jàngal quran di ñaan ba ba jant bi fenk mu jóg julli ñaari rakka dana am tuyaaba góor ñu am ca loole ngallaawaay mbokk ñu ngi dund fukki guddi yoo xam ne bokk nu la gën a baax lañ ciy def mooy dogu ngir màggal ko dogu ngir tuub suñuy bakkaar bokk na tuyaaba yi gën a màgg yow jurit looy def mooy xool li la yàlla nattoo ci bakkaar nga jëm ko tuub tuub gu sell loolee ca jëf gën a mag la bokk baril ci lool di jéggulu sa boroom baril ci lool la nga xam ne mooy ay ñaan rawatina bu la yàlla yóbboo ci bisu arafa yonent bi nee na ñaan gi gën mooy ñaan gi nga ñaan bisu arafa baril ci lool di taxaw guddi di la baril ci lool di baril ay la même bu dee ne du xiyaamu layli ya lu ngeen mën ci lu baax nga la def leen ko yéen ñi des ay waajur yuy dund bokk na jëfee gën a baax fexe ba dab sa ngërëmal waajur sa waajur yi faatu bu leen fàttee mukk ci ñaan bu leen fàtte génn leen ay sarax bokk na jëf gën a màgg yu yàlla gën a bëgg mooy jokk la nga xam ne mooy mbokk ga bokk na jëf yi yàlla gën a bëgg mooy rafetal jëm ca la nga xame ni moom mooy dëkkandoo ya waaye it bokk na jëf yi yàlla gën a bëgg mbokk mooy la nga xame ni nii nemmeeku aji feebar ya seeti leen ñaanal leen jàppale leen ci ordonnance yi nga xam ne ñett na leen waaye it mbokk dama manière générale bokk na la gën a màgg lu ñu war a bàyyi xel ci fukki fan yi mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaaxaate دانا وخنا من سطر أخاه المسلم سطره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كو خمني سترالنا مبوكو جليت يالا سترالكو أدنك الآخرة كو خميني ني teggil ne benn julit njàqare gu mu amoon yàlla teggil ko njàqare yay am ca la nga xam ne mooy àllaaxira yàllaa ngi taxaw di dimbali ab jaamam fii ak jaam bi mi ngi xalaat dimbali mbokkam julitam loolee nag mbokk rawatina ci bis yi yow mi nga xam ne am na lu la yàlla dénk nga xool la nga xam ne mooy dëkkandoo yi xool mbokk yi bokk na tiis yu mag yoo xam ne nii suñ mag ñi dañ daan wax bokk na ci ah gàcc yi gën a rëy guy mën a dab góor sa jabar am juróom-ñeenti ëmb ba am juróom-ñeenti weer am doom amoo xar moo ko reyal bisu tabaski dëkkandoo yépp yeew seeni xar sa njaboot taxaw di la xool yow amoo xar boo leen rendil loolu moo tax ba képp koo xam ne mën naa jàppale mbokk mbokku julitam ci fukki fan yi na doon da nga koy jox lum jëndem xaram wala da koy jàppale ci loo xam ne dana ko dollee wala loo xam ne dana ko mën a soppi ci nem bisu tabaski man caa bégal la nga xam ne mooy njabootam ngal la waayi loolu mbokk bàyyi leen ci xel te xam ne day 1000 francs ba nga sarxe ci fukki fan yi mën na raw 100000 yi nga sarxe ci yeneen i bis loolee ku nekk ci ñun góorgóorlu kemtaleel kattanam jéem caa bàyyi xel te xam ne suñuy wax it mooy loo xam ne jullit ñépp dañ koo bokk jullit ñépp war ca wane la nga xamee ni moom mooy seen mbégte ca loolee bokk na loo xam ne suñu jamonoy tey lépp loo gis rek xaalis lay jar kon ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee ñu góor góorlu suñu kemtalal kàttan bokk na boroom xam-xam yu jëkk yi day kenn ci ñoom bu masaan fekke fukki fan yi daanaka day beru am na ci ñoo xam ne dañ daan jàngale sax ay hadis comme mel ni ahmad rahimahullah waye bu fukki fan yi jotee dañ daan daw place yi ñu doon jàngale sa hadith ngir profito ci lu bax ci askar ya ak la nga xamne mom moy mooy njàngum alquran ma lolé mbok buñ koy joxe misal dañ koy joxe misal ci la way bari na temps yoy ñak ci lo xamne ni amul ben njëriñ gor gor loolu profito ci ci la nga xamne moy mooy njàngum alquran la nga xamne moy baril ñaan la nga xam ne mooy bari la nga xam ne mooy ay askar loolee ca la gën a am solo loo xamee ne nii daan ko bàyyi xel mbokk julit ñu la nga xame ne it moom mooy tabaski di yegg foo xamee ne nii dañ koo war a waajal bokk na lu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax kenn ci yéen de bu dee weeru tabaski daa teru ca ma am yéen a rendi benn xar ngalla waay bu mu watooti bu mu daggati ay weyam ba baa muy rendi xaram loolee mooy ki nga xam ne daa am yéen a rendi su ko defee ngallaawaay nga bàyyi xel loolu mooy fi ak tabaski ga nga bañ fi watu bañ ci dagg say wey ba baa ngay rendi sa xar ba pare loole mbokk gannaaw ba ñu ngi nekk ci ah, wut xarum tabaski nañu xam ne tabaski boobee suñu borom nee na du yàpp yu la soxla du deret ji la soxla li mu soxla mooy ragal yàlla gi nekk ci yéen ku nekk na xool lam tollool mu jënd ko def ko ci yàlla tax te wallahi yàlla yéen ñi lay fay yéen ñi tolloon ci xarum cinquante mille sa xar moomee mën naa sell gën a màgg ci yàlla borom xaru cinq cent mille def ko ci yàlla tax doonte ne moytul bépp xar boo xam ne daa pat bépp xar boo xam ne dafa doon bu la fañ bépp xar moo xam ne daa feebar bépp xar moo xam ne daal loof ba amul benn yàpp lii moom yeneen ci bi dañ koo tere bokk na lu ca boroom xam-xam yi di dolli xar yoo xam ne bijjeen ba daa dam nopp dañoo xar génn yi dañoo dagg ak yu demee noonu am ay ayib soo ko mënee moytiin nga moytu ko rafetal ko sa kemtalal kàttan màggal ko sa kemtalal kàttan su yàlla yaatalee sa wërsëg nga jënd xar moo rëy jublu ci rek jaamu yàlla jubluwoo ci puukare loolu da ngay gis ne nekk na loo xamee ni lu baax la gannaaw ba yi tamit kii di abu ayub al ansaari radiallahu anhu daana wax ne jamono yonent bi salallahu alayhi wa sallam benn boroom kër day moo daan rendi am xar yéene ko ak njabootam gannaaw ba nag la ko nit ñi def puukare bii nga xam ne ca la yegg léegi su ko defee na sa xel dal yow mi nga xam ne yaay boroom kër même boo fa nekkee say doom même bu dee am nañu ay jabar maadaama njëlli benn la su dee am nga benn xar nga rendi ko yéene ko ñoom ñépp dañuy am tabaski wax naa la sànq yàlla soxalul yàpp bi ak la nga xam ne moom mooy ah deret ji loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax jàppalente ci képp koo xam ne ni gannaaw ba it dangay ngay rendi jublu ca tuur deret ca mu sell ci yow loolee it da ngay gis ne doon na loo xam ne ni lu baax la su dee ne kay yàq amu ca su dee ne puukare amu ca mbokk jullit da gis ne lii bi nga xamee ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, teete nañu ci dañoo war a def suñu kemtalal kattan ci jéem a xool naka la ñuy dunde fukki fan yii nga xamee ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala màggal na ko lool ca bokk na màggal ga nga xamee ni nii gën na koo màggal mooy ñu góorgóorluwaat jéem a xool nu ñuy jege suñu boroom mboole bi jaami yàlla benn jubluwaay dong la am mooy naka ngay def ba jege sa boroom subhanahu wa taala loolu moo taxit suñu waxee jëf ju baax firiwul mukk ñu créé ci lenn loo xamee ni ay bidaa mbokk bidaa du jëf bu baax bi bidaa daf lay soril sa borom lay jëf lu baax mooy la jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne daana wax na ca gën a màgg mooy kaddu la ilaha illallah la ca gën a suufe mooy dindi loo xam ne nii dafay lor ci yoon bi la ca gën a màgg bokk na ca nga xam ne moom la yàlla yónni woon ay yonentam mbokk yonent yi yàlla yónni woon li lu den ngir woo woote jëme ci yàlla loolu moo tax ba mbokk nañu góor góorlu jéem a woote jëme ci yàlla ña jiitu ña ñuy woo jëme ci yàlla mooy suñu njaboot nemmeeku leen doom yi nemmeeku leen soxna yi ndax ñi ngi matal seeni julli ndax ñi ngi moytu lu yàlla xaraamal gannaaw loolu xamal ne amul benn mbokk jullit boo laayi biir bu gën a màgg tere ko lu bon wala digal ko lu baax lu mu doon def mayoon ko un million nga fexeen ko ba naxtaan ak moom ba lu bon lii muy def mu bàyyi ko naxtaan ak moom ba mu def ndigalu yàlla xale bi jigéen bi nga xam ne du muuru nga xamal ko ne lii de yàlla moo ko santaane def gi nga koy def day yokk sa personnalité day tax nga jege sa boroom day tax nga mucc ci seytaane yi naxtaan ak moom mbokk loolu mooy jëf yu baax ya gën a màgg yo xamne ni doomu adama bi dana ko defal ci digeentem ak boromam mom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam don wax ni yàlla jubale ci yow ben doomu adama day neena mo moo ci yow la nga xamne tay ji moy humru nam moy waru way yi gën mag doomu adama yi dem nañ be créer ay auto yo xamne ay limousine yu jar des centaines de millions waye nga fexe ba benn doomu adama jub nee na moo la gënaloon loolu lépp bal loolu moo gën sax àdduna ak li ci biiram su ko defee kon mbokk jullit ah, loolu doomu aadama la cee war a dund dundam bi yëpp waaye nag niñ ko wax woon ci njëlbeen mooy fexe ba defoon ko ca la nga xam ne mooy fukki fan yi loolu day day doon bonus boo xamee ne nii gannaaw fukki fan yi nit mën naa def téeméeri jëf yow jëf boobu mu def nga fexe ba def ko ci fukki fan yi yàlla bindal la ci tuyaaba boo xam ne moo ëpp fuuf tuyaaba bam bindal doomu aadama bale borom bi moom lay wax ne wa man yuazim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub képp koo xam ne màggal nga la yàlla subhanahu wa taala màggal loolee day wone ne ragal yàlla mi ngi ci yow ca àjjana yàlla defar mu ñuy xaar ñenn dong la ko jagleel mooy ñi nga xam ne dañoo ànd ak ragal yàlla yal na yàlla wërsëgal ñu ragal yàlla yal na yàlla wërsëgal ñu màggal fukki fan yii bépp jëf boo xam ne gërëm na ko yal na yàlla dëppale ñu ñu jëfe ko ci jëf boobee lépp loo xam ne nii lu mu xaraamal la yal yàlla dox suñu diggante ak moom yal na yàlla wërsëgal ñu ba dara ba ñu cee raw mboolem ay bisam mboolem ay waxtoom yal nañu yàlla dëppale ba lépp ñu jagleel ko loo xam ne dañuy jegeel suñu borom jalla wa ala allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا مريدا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا